Eh, koo xam ne dafa am maanaa ci dëkk bi. Hmm. damay sax fàttali di gërëm ñi nga xam ne. Hmm. dañu nominé ñi ñu jàpp ne ay chroniqueurs yu fi nekkal askan wi la ci at mi. doo boole ma ci man le fait ñu boole ma ci rek sama civi mais man aw ma dayoo nekk fa. mais dafa am ñoo xam ne dañ leen ci teg tel que sëñ Baara njaay Sa Ndiogou Ousmane. Ousmane sëñ Mansour si si si si rési ak ñu bari ñoo xam ne mais man ki ma voteel ba man voteelu ma sama bopp de ah, saa njoogu laa voteel parce que dama jàpp ne xam-xamam sénégalais yëpp ñoo ko soxla dama koy ñaan fii saa njoogu nga may waa géewal ñëw fii loo masta def nekk suñu invité ñu dala voilà parce que man bi may wax dama ne dama joxe lay tey ne man moom laa jàpp ne moom mooy war a jël première place bi ñu bari wax nañ Cheikh Bara mais man gis-gis bi ma am mooy saa njoogu ay jàngatam mhm. kenn melut ni moom xam nga nga ñëw mën a wax kii nangama kii na mais saa lii kiyam mooy dadul dem fu bari toog loolu nag foor la ci moom mais maa ngi koy ñaan mu ñëw may ñu émission géwël mhm. mu toog fee ñu toog seq ak moom ay laaj ndax man damaa jàpp ne. li mu war a defar ci réew mi waaw ci la bokk man kay xam moo tax tey dama koo ah, jàpp voilà kii baa ngi nii. SMS gi ngi nii tuuti tuuti may nañu ko tuuti may nañu ko mu sedd xool lool. Ah, ah. man maa ci nekk onzième mm-hmm. man wutuma sax ku ma voteel mm-hmm. man la fait ko bokk naa ci rek. loolu moo ma ci doy. Mm-hmm. mais man dama jàpp ne man cinq bi laay voteel parce que dafa am lu tax. parce que ñenn ñi am nañ niveau d'université ah. non ndamu gé <laughs> non non man man man ñenn ñi xam nga bu ñu waxee Cheikh Bara def na daara ba njàngam bën na mm-hmm. suñu waxee Cheikh Ousmane Touré def na bu ñu waxee ay Mansour Cissé ay universitaire lañ mais saa njoogu fi mu jógee ak fi mu yegg ba mën a taxaw tey voilà jëf jàngat yu rëy yi muy jàngat moo tax man pour man moom moo mérité première place bi Cheikh Bara Ndiaye bu ciy topp doog cee doog cee topp te jàpp naa ne Cheikh Bara moom lay voteel voilà mais nañu dimbale nag waaw ñëw rek ñëwal ñu géewal ça da nga ma permettre loo xam waaw wala déet wala da may tuddal tur kan mooy sa homme de année euh, homme de l'année waaye Ousmane Sonko la. d'accord euh, sëñ Mbacke ku sa l'homme de l'année. sama l'homme de l'année Ousmane Sonko. ah yow tamit. jot naa ko waxee Sonko. d'accord euh, Al Amin kuy li ko. li li li li ko topp nii ci coow. deux mën nañu wax ne parce que Lat Joor coow toppoon na ko. Ah. avant moom. Ah. sëñ Touba bi mu fiy nekk kii coow topp na ko. ba après ngay ñëw di wax Wade ak i année mais jamono yi ñu nekkee nii. moom Ousmane la. te jàpp naa ne homme de l'année bi. saa yu deux minutes jeex na d' accord merci <laughs> beaucoup maanaam say deux minutes ngir nga euh, ndénkaan la wala lu jaadu. waaw mais mbégte rek la parce que li Saa Wolof wax ni euh, mbëgte la ci man parce que dama koy faral di wax toujours. Euh, ñu bëri ci sénégalais yi. boo dul làkk français wala doo làkk arabe. dañ duñ la boole ci borom xam-xam. te làkk yooyu làkk la Kocc Barma borom xam-xam la. Mhm. est-ce que danaan làkk france wala danaan làkk arab donc léeg-léeg nga gis koo xam ne mëntu làkk benn baatu yaaram. mëntu làkk benn baatu français. Mhm. mais fekk boroom xam-xam la. Mhm. léegi tànn bi ñu tànn. loolu lay firnde. parce que defe naa ne ñii ma fi dégg. ñi fi mën a làkk arab bëriwul. ñi ci mën a làkk français bëriwul. mais tey xoolal nii leen askan wi joxe nopp. di leen déglu ba ñu am ci ñoom influence boobu noonu. donc ñu ngi leen ci ndokkeel. di leen féliciter euh, di leen war ne lii mooy war ne réew mi dafay changer mais yii yëpp ndamu Cheikh ante Diop la. waaw Cheikh Anta Diop yàgg nañoo gëmloo suñu bopp yàgg nañoo fonkloo suñuy làkk. parce que nit mënut développer ci làkku jàmbur. dégg nga tey wax dëgg yàlla man saa wolof bi ma ko gisee damaa bëgg. Mhm. parce que dama xam ne xam-xam lay wax. waaye mu ngi may mu ngi may bëggloo wolof mu ngi may bëggloo làkk yi parce que làkk yi lépp ngi ci biir dégg nga tey euh, euh, kii euh, Sanjoogu dama jàpp ne moom sénégalais yi war nañ taxawaat ci mbiram parce que multidimensionnel la ah waaw léegi nag dañoo xëy rek gis benn Sanjoogu boo xamante ni penseur la léegi mu jógee ci Sanjoogu comédien ñëw ci Sanjoogu penseur mm-hmm. mais penseur bi mu doon daf ko rax ak philosophie mu nekk un philosophe mais loolu doyul mais mu nekkaat beneen formateur des leaders parce que saa Ndiogou grave maanaam njëriñam mais dafay former ay nit maanaam defar ay nit former ay nit te loolu mu ngi ci yoon wi fii ak at yu néew dinañ gis leneen loo xam ne dina ko amal njëriñ Cheikh Bara Cheikh baara Cheikh Bara Cheikh Bara Cheikh Bara fatxu la am mhm. parce que lii muy wax du lu mu jàng mhm. li muy gëstu li muy wax ni ja baara jàng ko ci france mm-hmm. jàng ko ci arabe. Mm-hmm. te tey li muy wax mën nga ko ne quatre-vingt-dix pour cent yi bu waxee. Mm-hmm. ku jàng du ko dindi. donc loolu fatxu la. ñu ngi ñaan yàlla mu gën a yaatu. gën a bari. liñ ciy jàngee mooy changement wu réew mii nii nii nii. maa lay dagg foofu te di la ko jéggalu. waaw Cheikh Bara moom comme yàlla dafa dogal day sama wala di sama xarit. waaw dama ko waxoon fii. waaw na jot na sax mu sol meneen mbubb. waaw mu bokkul ak toog rek di wax. waaw. ndax suñ borom dénk na ko xam-xam bi am na culture bi. Mhm. war na bàyyi xel ne ëllëg war na taxaw ca penc ci ndawi réew ma. Mhm. di wax ñu koy déglu. Mhm. war na sax nekk ministre. war na sax nekk président. mën naa ne mu doon suñu président bi njëkk nga xam ne. doomu daara la. ba pare déggul français mooy li ma la doon wax léegi. Ah, lan mooy constitution bi ku dégg français rek moo ñu jiite. loolu ki ko xalaat xaw ma kan la mais kuy nelaw la. boo déggee engrais sax doo ñu ci mais maa ngi jégalu damaa bëgg a wax ne sëñ Lamine mii it mhm. suñu gisee saa wolof di toog fii daf ci participer lu bari. macha allah moo bàyyi bay gay si la ak yeneen i mag yoo xam ni dañ lay. dañ lay sotle daal dañ lay teg ci yoon. am na solo naan la defeel nii ak ak ak yu demee noonu. jërëjëf waaw ñun la ñuy gis. mais nañ xam ne ñi ci nekk ci ginnaaw sëñ euh, sëñ Abdou Mbacke. bu Baye sa Khady. Mhm. nee na mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp. jërëjëf mu nga fële ca euh, dëkk tubaab ya. ku baax mu ngi suivre émission bi mu ngi leen di ñaanal yal na jàmm moom yal yàlla gën koo sàmm. amiin yàlla a tax yokk taxawaayam. daanaka réew mi joué na ci rôle yoo xam ne euh, bu réew mi tolloo fi yu bëri tàkkul mm. Hmm. gannaaw yàlla ci loxoom la ko ah. yàlla jaarale yàlla ko yàlla dolli kattan amiin waaw mu ngi ñaanal bu baax a baax a baax jërëjëf ñu ngi ñu ngi namm nañ ko nag Sénégal namm na ko nag namm nañ ko na ñëw waaw namm nañ ko na ñëw te tamit fa mu ñëw suñu géewal gi de ah wax ko loolu de wax ko de mu ngi lay dégg noonu man moom man moom je tenais vraiment sama ndénkaan sànq moo ngi ko bëggoon wax sax ça redresse man te merci beaucoup ah mooy dafa am euh, ji nga ca commune bu jaxaay jaxaay nekk ñi nga xamante nii ñoom ca jamonoy Abdoulaye Wade mbënd ba ba leen sonalee ñoom la ñu jël ñenn ñi ñu dëkkoon ay géejawaay ki piki nag ñoomi seen banlieue bi ñenn ñi sonnoon ci ndox mi ñu yóbbu leen foofu euh, ngir ñu am fu ñu dëkk waaye foofu fañ leen yóbbu fi mu toll nii euh, am na hôpital boo xamante ne nii bañ ko sancee ba tey yeggagul ca jamonoy Ablaye wàdd ba tey ba tey yeggagul nee ñu euh, ci bu ma sukkandikoo ci enquête yi ma def la ko mën a yeggali matul deux milliards te chaque jour ñu dégg fi loo xamante ne nii. ci ci waaw ci budget bëriwul. chaque jour ñu dégg fi jël nañu nangami milliard jox ko diw jël nañu nangam milliards jox ko ci ci wàllu fecc ak ci wàllu nangam ak yeneen ak yeneen ak yeneen te defe naa ne nag njàng ak faj nu tudd feebar ñu faj la defe naa ne lu am solo la mhm. ñoom nag. dañ koy jooy saa su ne xëy na ma toogoon fii nekk seen dëkkandoo ndax maa ngi dëkk cité gendarmerie tafoog ñoom bokk ci commune bi ba tey ah. waaw ah, moom ba tey ji ni maa ngi ñëw loolu hôpital boobu noonu nekk na lu am am solo loo xamante ne ni kilifa yi war nañ cee indi ay ay ay joyanti ngir eh, su ko defee ñu nekk ca commune ba parce que commune bi dafa nekk ba dem ba développé ba suñ ko doon xayma ci ay nit bëri na lool sax mënumaa wax ndax damay bañ a juum ci ci ci nombre bi quoi chiffre bi plutôt mais tamit nekk na ci yenn zone yoo xamante ne nii làmp ya dese naa tàkk bu tàkkee rek élection dañ faa jëm loolu nag du yoon du dëgg du yoon bu fekkee yéen a ngi may dégg képp kuy kilifa nga dëkk foofu te parce que kilifa yu bëree fa dëkk de su may lim nii da ngeen naan ma fa mais ña fa dëkk ca alentour ba ak ña fa dëkk ndaxte boo waxee foofu yaa ngi wax Almadies 2 yaa ngi wax feneen ak feneen ca booru autoroute à péage ba Sédiment ba foofu la nekkee mu nekk foo xamante ne nii war nañoo dépasser li nga xamante ne nii moom la ñuy dund comme galère ci ndox ci wàllu tamit courant ci wàllu tamit feebar faju man loolu moo nekkoon tey jii sama ndénkaan bëriwut li may def ndénkaan nag mais lii lu ma lu ma lu ma dencoon la sama xol ñuy waxtaan ba dugg ci ma bëggoon koo yëkkati daal merci beaucoup en tout cas euh, ah kotumbat luy loolu yow damu xaj koo koy jox deru sellu wëgg na nday ja jëwri question bi de